be yi ñepp ñepp leen soxla parce que di ni ñu gaf au contraire pour la première fois be yi def congrès ni ñom président ku ñepp soxla ñepp bëgg la xëcc yow ñooñu dajé ni yow la soxla mais lool sante yalla la donc fi may terminer discours bi li ci gënon am solo du tatchu mais ma wax ay chiffres ñu déglu parce que xam dañuy and fan lañu ñu jëm parce que and bi aussi tay du ñëw ñu installé def congrès bi rek dem and bi dafa commencer tay day law ñu nekk en coordination jaadigal foré lu mu defati pour woté and jariñ se réew jàppale plan Sénégal émergent ken duñu fa jitu waaw té comme ni mako don doon sank sama sama cousin sama collègue man ngeen considérer ça ni à partir d'aujourd'hui man ak Abdou ndene Sall bon bok nañu ci jaadigal na foré waaw bon té comme que tamit euh, lawbe yi diñu ñu tamit bon Samba il faut que tamit ñu jox ñu man ak euh, fa ñu jubboole ñu ci donc lii laa amoon en fait lu may wax du discours bu politicien mais discours bu nit ñi mëna dégg xam ni da ngeen di ñëw ci dara loolu ñun ñoo ko nafar yor ko il faut que ñu leeral leen ko il faut que ngeen xam plan Sénégal émergent xam plan bi nan la soqee ko fan la toll ak fan la jëm et que comparativement à liñ fi fekkoon parce que ñëw fi di wax sax ay waxu ñi fi nekkoon ak ñi fi nekk di def leneen ak leneen daf ñuy perte loo temps sama discours du ma ko mais dama leen jox chiffre yoo xam ne dama ko jël ci infrastructure routière su ma woote agriculture mu gën a garaaw su ma éducation nationale mu gën a garaaw su ma ci enseignement supérieur wax naa en 50 ans Sénégal ben université la tabax te dañ ko ko may en quatre ans président Macky Sall di tabax ñaari université yoo xam ne deux mille dix huit incha allah dina pare sur fonds propres amul comparaison da ngay comparer lu comparer ñii on ne boxe pas ñi fi nekkoon ak ñi taxaw ci mbedd mi di mbël-mbël pour ni dañuy jël place am il ne boxe pas dans la même catégorie du ben. donc même quelque part ça, il a raison ni nek di leen tontu hein, perte temps la euh, fàtte obligation yi li ñu fi war ak li fi ñu jëm parce que li soxal mooy plan Sénégal émergent te sénégalais yi sénégalais yi kenn gënul kenn warul insulter intelligence pas parce que da nga nekk ci nguur gi walla jaaroon nga fi yaa gën xam sénégalais li bëgg wane nañ ko ci référendum bi te tamit yaakaar ni législative yi di ñëw foofu sénégalais yi apprécier simplement sur la base de président Macky Sall bilan bi mu def par rapport représentation nationale ñi